defe naa ma ne ma des na cee yokk suuratu sarx ndax nee naa la bokk maana ndax ñoom yonent bi salaa salaam boo ko jàngee ba mu jeex yonent bi dong lay waxal ah, amul jullit ñi amul yéefar ñi amul malaaka amul yomal xeyam amul dara bi kottu keese dong waaw waaw loolu nag day wane daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam bismillahi rahmaani rahim alam nashrah ndax léeral ndax yaataluñu alam nashrah laka ndax yaatala luñ la sadaraka sab dënn waaw ci lan ci bi nuuril islaam bi nuuril islaam waaw bi ci leeruk lislaam ci leeruk ngëm ci tànn gi la yàlla tànn loolu suñ boroom mu mel ne ab laaj la waaye ak saxal la ndax yaataluñ yaataluñ sa dënn waaw yaataluñ sa dënn def ca imaan def ci lépp rek tabarkàlla wa wadaana ñu sippi mooy ñu dindi anka waris la wisraka sa bàkkaar allati bi nga xam ne an qada dafa diisaloon waxraka ca ginnaaw sa gin waxraka sa ginnaaw waaw ñu sippil la say bakkaar ba yorutoo benn bàkkaar li yaxfira laka allahu ma taqaddama min danbik wa ma taaxar waaw bàkkaar yooyu rek dee ko dégg rek waaw dee ko dégg am na ñoo xam ne wisraka say say diis diis rek lañ koy fiire duñ ko firee euh, duñ ko firee bàkkaar ndeysaan waaw say diis diis yoroon ci léeg-léeg yenn décision yi jël manoon a deflee deflee eh, afallahu anka lima azinta lahum ak abasa wa tawalla ak yenn comportement yi yooyu la ñuy tudd rek ay njuumte waaye ñoom tabarkàlla wa wadaana anka wisraka kon da fàttali xéewal yi waaw wa rafaana laka ñu yëkkatil dikraka sa daraja waaw yonent bi darajaam ni mu yëkkati ko adduna bi foo toll yaa ngi dégg noddu gi ashhadu an laa ilaaha tudd aw turam ashhadu anna muhammadan rasulullah ndeysaan booy dugg ci diina ji li tuddoo turam dugg ko du baax de waaw waaw nga tudd baati seede yi te turu yàlla se boo seedelee yàlla ne moom rek mooy ke yeew jaamu ak loo ci aju yonent bi faaw nga tudd ba ci yéefari sax ñëpp dañoo xam aw turam bal mooy ki ëpp aw turandoo ci àdduna nag fa inna ma al usri ànd naag jafe-jafe yomb yomb inna ma al usri ànd naag jafe yusran yomb yomb waa moo tax fu jafe-jafe ñëwee rek xamal ne suñ borom du la ca saxal yàlla du la bàyyi rek ci ay jafe-jafe rek non waaw wala fi nee nañ yàlla du tëj buntu euh, tëj fenêtre wàcc wàcc rido fu jafe-jafe amee rek xamal ne xéewal dana ñëw waaw moo tax ñu ne al usru mooy jafe-jafe yi dafa nekk benn daanaka waaye yusran dañ koo def mu nekk nakira mooy ay yomb yomb yu bari fa ida faraxta boo noppee ci say soxla yi àdduna fan sab nanga nga sonn ci jaamu yàlla na nga sonn ci wéetal borom bi nanga nga sonn ci nangam waaw na nga sonn mooy yeesal fa jaddit euh, wala boog fa jut file ibadati waaw na nga na nga farlu ci jaamu yàlla fa isa boo noppee fa isa faraxta min umari dunya wa ashxaaliha boo noppee mbiri yi nee na fa jut file ibada na dem ci jaamu yàlla ga wa ila rabbika jëm na ci sa borom dong ci sa borom dong farxab na ko xemmem waaw booy xemem na nga xemem yàlla saa borom ak i mbiram kott kese donc waaw kon gis nga ba tey gis nga saar wi lépp yonante bi alayhi salaatu wasalaam euh, lay waxal kon moo tax ñu jaar ci jaar bu euh, gàtt boobu rek wallahu aalam